ñu ngi leen di wax ne jumaa mubaarak di ñaan borom bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla nangul lépp luñ ko jaamu ci bés bi xam ngeen ne bés ni ki mu doon yomul juma mu doon sangu yi bés yi di gën ci bés yi mu am particularité boo xamante ne yeneen bés yi amuñu ko ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xamal la bés bi làmboo ne bés bi nekkee importance ba bés bi am yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu bëgg a baaxee bés bi na mu toll fa yàlla waaye mu doon bés bi nga xamante ne kenn xamut mbóot ya ca nekk secret ya fa nekk ko yàlla waaye lam ci xamal yonent bi moom la ñu yonent bi baaxee sallallahu alayhi wa sallam ci ay ahadis yu fasante ko ñu nit ñu jukkil leen ci lenn ci ay ahadis yooyu ngir ñu war a mën a baaxe wante mbokku auditeurs yi fu ngeen munti nekk fii masharikil ardi wa magharibiha ñu ngi leen di wax ne yal nañu yàlla may dégg ak topp lañ fi dégg mu doon ñaaxaate yal nañ si yàlla wommat ñu jëfe ko yañ ci dégg mu doon xëyti soññaate yan ñu ko yàlla yombalal ñu war si war a mën a tënk suñu bopp waaye lépp luy xëytu tere yan ñu ko yàlla yombalal ñu war ko war a mën a sori suñu kemtalaay kattan amin ya rabbal alamin ba tax na bés bi di yowmul jumaa njëriñ ya fa nekk bari nañu lool kenn mënu ko waxtaanee ci waxtu su gàtt waaye ñu compal leen tuuti rekk ci waxtu bu ñu yàlla may ñu war ko mën a waxtaanee ak mbokk yi ñu yàlla yal nañu ko yàlla leeralal yal nañu ko yàlla jàppandal ñu mën ka leeral amin ya rabbal alamin an abdullahi bnu umar radiallahu an qaal afdalu salawaati inda allahi fi subh fi jamaa afdalu salawaati inda allahi salaatu subhi yowm aljumaa fi jamaati hadisun saxiix axrajahu albani mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mooñ ne ci hadisu saxaabi bi ñu naan abdullahi bun umar radiallahu anhu nee na naka yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ngeneelu bés bi ngeneelu bésu arjuma njëlbeenu audience ba jullit ñi di am ak seeni boroom abdullahi bun umar radiallahu anhu nee na bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu audience bu njëkk boobu mooy waxtu julli bu njëkk ba jullit bi di am ak boroomam comme audience mooy salaatul subhi mooy julli suba yowmul jumaa bisi àjjuma fi jamaati ba ñu def ci mbooloo nee na gën ci waxtu yu julli fa yàlla mooy waxtu yu julli suba bésu àjjuma ba jullit bi def ci mbooloo mbokk yi loolu benn ngeneel la ci bésu àjjuma képp ku ko yàlla wërsëgal képp ku ko yàlla yénkeewal képp ku ko yàlla jàppandalal danga ci am ay weer nga teewee waxtuy julli suba ci mbooloo bésu àjjuma nga di ko def ay weer nga di ko def ay weeri weer xamal ne yaa am leneen lu keneen amul yaa am yiw bu toll ni ki ko du teewee ki ko du teewee nag ñàkk na loo xamante ne bu ko xamoon ni konte moom it dina fas dina xar tànku tubéyam dina takk ndigam muy teewee waxtu yu julli wu amaana du ñàkk kuy laaj waaw sama yaay mi nar a julli ci kër gi nag ñu ne ko deet kooku moom kër gi lañ ne na ko julli waaw bu dee mu ngi julli na julli waxtu yi fajar ci kër gi du ñàkk moom it dina am ci yiw woowu waaw mbokk yi yenn jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bokk na ci ngeneelu bés bi la yonent bi askan bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullahi alayhi wa qaal xayru yowma talaat fiihi chamsu yowma aljumaa fiihi xuliqa aadam wa fiihi uxbit wa fiihi taaba alayhi wa fiihi maat wa fiihi taqumu saaha wa fiihi taqumu saa hadisun sahih axrajahu albani sahihul abi daawud mbokk yi yann jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ñu baaxe ngeneel ba nekk ci bés bi ngeneel ba nekk ci bésu yowmul jumaa di sangu yi bés yi mu nekk bésu àjjuma ngeneel ya fa nekk bari nañ lool waaye xadis bañ leen waaj jàngal nii bokk na ci ngeneel yooyu moo ne ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ñu ne ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu yonent bi daf ne xayru yawmin talaat fihi shams bés ya gën bés yi jant bi di fenk ci bés yooyee bés bu ci gën mooy yawmul jumaati mooy bésu àjjuma mooy bés ni ki tey yonent bi nee nañu lu tax bés bi gën mooy fiihi xuliqa aadam ci bés boobu lañu ñu bind suñu maam aadama alayhi salaam yonent bi nee na ndegem bés ni ki ca la ñu bind suñu maam aadama alayhi salaam képp ku ñu ne bés ni ki tey la bind sa maam bés ni ki tey moo doonoon anniversaire sa maam bés boobu danga koy bàyyi xel te danga koy jox gëdd ba tax na ndegem yonentu bi ne suñu maam aadam bés ni ki tey lañ ko bind di yowmul jumaa kon jullit bu nekk war na mën a bàyyi xel bés boobee nee na bokk na ci ngeneelu bés boobu wa fiihi uxbit bésu arjuma la ñu wàccee suñu maam aadama alayhi salaam mu jóge ko fa kaw mu wàcc ci suuf mu jóge ko fa yàlla wàcc ci suuf yonent bi nee na yowmul jumaa la tombeel di bés ni bokk na ci ngeneelu bés bi yonent bi nee wa fiihi taaba alayhi bés la jéggalu ci la ko yàlla jéggal waaw ah, bésu arjuma la jéggalu aadama bakkar ba mu defoon ca arjana ci gannaaw bu ko yàlla teree ne bul jege garab bi seytaane ñëw jax-jaxaleen ibliis ñëw jax-jaxaleen jax bem leen mëni ñu def la leen yàlla tere mu doon moy ah, mu doon moy ba ñu njëkk a moy ca arjanna keroog ba mu moyee yàlla ca arjanna ci la ko yàlla tere ba mu tuubee yonentu bi nee na bés ni ki tey la ko yàlla nangul tuub boobu mu tuub waaye bokk na ci ngeneelu arjuma ba léegi wa fiihi maata ñu ne bés boobu la suñu maam aadama làqu ca la génnee àdduna ca la faatu kon ñu bis ni ki tey la suñu maam tuub ci bàkkaar ba mu defoon yàlla bés ni ki tey la ko nangul tuub boobu mu tuub képp ku ñu ne keroog sa maam ba mu defee bàkkaar ba mu tuubee bés ni ki tey lañ ko nangul tuubam keroog lañ ko jox ngelaw bu fiix ngir mu dundu lu fiix kon bés boobu yow mi di sittam war nga kaa bàyyi xel war ngaa bàyyi xel bés boobu dayo ba mu am képp ku ngi ne sa maam bés ni tey la faatu war ngaa tal leneen lu dut feccaka tubaka dal comme niñ koy gisee suñu jamono ji am na yenn programme yoo xamante ne vendredi si guddi lañ koy tàmbali ah vendredi si guddi lañ koy tàmbali di foo ba bés ba di vendredi ñu acc la foo ñu tegandi seen folklore yooyu guddi samedi ñu tàmbali ko jëm bi dimanche te moo ne yàlla nee na dangeen defe ne po ak fecc ak tubaka dala da defe ne looloo tax ma bindi leen ah da xamul la tax ma bindi leen rek bu ngeen ko xamoon di ngeen tal sax di rëngi-rëngi ci kaw suuf si foo xamante ne mooy sa mujjanteel foo xamante ne fa ngay delloo fa la ñuy gas ba mu xóot ñu ne suuf si waa ji doon cippi cippi sa kaw di tëb ka di xaawee ko sa kaw mu ngi nii keroog képp kuy xalaat bés boobu du jaas yan yéex ña koy def yan na leen yàlla delloo seen xel ñu tuub balaa bés boobu du jot ñu dugal la ci pax bu xat suuf si di wax ak yow naan na ah yow xale bu jigéen bi sama kaw nga doon cippi cippi di xaawee ko di tëb ka dal tey amoo jot boobu. rëccute daal daldi la lémbe looy wax kon may nopp bi ñuy may nopp fii ci réew mi fm 97.5 kuñ ne sa maam bés bi la faatu war ngaa tal leneen lu dul kër fecc kër di def ay yëf war ngaa tal leneen lu dul ngay tubaka dal di fecc di def ak yëf bés bii lañ ne sa maam ca la génn àdduna bés bi da ko war a jox gédd da ko war a respect da ko war a fonk ko war a bàyyi xel la la war si bés bi mooy suba si damay laablu ba jàkk laa war a julli ci ginnaaw ban imam laa war a julli imam bi tamit xalaat yan xutba laa war a lancer ko message jëmale ko ci askan bi su ko defee ñu waajal bés buubee sol suñu yëre yu set sangu bi laab ci kanam tuuti noddukat bi noddu ñu dem joxe farata bi nga xamante ne mooy bés bi ñaari rakka yoo xamante ne dinañ ko julli gannaaw bu imam bi xutbee ñaari xutba yi mu daal di taxaw ci kanamu mbooloo bi ñu daldi joxe farata boobu bokk na ci ngëneelu bés bi yonent bi ñu wa fiihi taqumu saa bés ni ki tey di yowmul jumaa caalaa bés pénc di taxaw waa képp ku ñu ne bés àjjuma la bés pénc di taxaw wallahi summa wallahi yow war ngaa xelaat leneen war ngaa tal leneen leneen moo war a nekk sa yitte lu dul ngay tuppa ko fecc ngay tuppa ko fecc ka dal di def ay yëf bés pénc la a bésu àjjuma la bés pinc di taxaw képp ci ku mu leer war xalaat leneen moo tax ñaxam xam ak dayoo ak xiima bu yowmul jumaa taxawee ñaxam taxawaay bu bésu arjuma taxawee ñooñu yonentu bi nee na dafa am melokaan ba ñuy mel keroog bu bés bi teroo ba jënt bi di fenk ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal maa min daabatin illaa wa hiya musiixatun yowma aljumca min xiina tusbixu xatta tatlicu alshams shafaqan min alsaa'a illa aljin wal ins xadiisun saxiix axrajahu albani fi saxiix abu daawud mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bu mag yi ñu naan abi hurayrata radiyallahu anhu nee na naka yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu maa min daabatin amul benn mbindaafoon bay dukkat ci kaw suuf si mooy njanaaw walla di rab wala di bayima illaa wa hiya musixatun yowmal jumaa lu dina ànd ak tiitaange bu raglu bisu ajjuma keroog min xiina tusbihu keroog ba bët setee xatta tatla'u shamsu ba keroog jant bi di fenk shafaqan ngir tiitaange mina saa ne bés penc taxaw yàlla yonent bi nee na ñadut am tiitaange bi ñadut am raglu bi ña bi du tiital ña bés bi du tiital ña du am tiitaange ci bés bi mooy ñaari mbindaafoon kepp mooy jinne ak doomu aadama nee na ak nit daal ñoo fi nekk du ñu bàyyi xel bés pénc la bés arjuma la bés pénc di taxaw waaye lu dul nit ak jinne amul benn mbindaafoon bay dukkat ci kaw suuf si keroog bu bët setee lu dul dina am tiitaange ba nga xamante ne dina tiit ci xolam dina am ragal bu toll ni ah mbaadu tey la bés penc ah mbaadu tey la bés penc yi dañuy am tiitaange bi rab yi dañuy am tiitaange bi mala yi dañuy am tiitaange bi garab yi dinañu am tiitaange bi géej dina am tiitaange bi asamaan dina am tiitaange bi suuf dina am tiitaange bi jant beeg weer bi bidéw yi ngelaw yi ñëppay tiit ne est du tey la bés penc di taxaw est-ce que arjuma ji la bés penc di taxaw ndax ñoom leer na seen bopp leer na ci seen xam-xam baleen yàlla xamal bés penc kat day tombeeg arjuma léegi arjuma bi ñu nekk nii dañu naan mbaadu tey la waaye yonent bi nee na keroog bu jant bi fenkee nañ naan aa kon du bés bi tey du bésu arjuma ji tey ndax bés bi nga xamante ne ca bés pénc di taxaw ñu ne keroog jant bi du fenk asamaan du fi nekk suu du fi nekk kon du tey amaana beneen bés la waaye ña dut faale bés pénc ba nar a taxaw yowmul jumaa ñaari mbindaafoon ndong lañ mooy jinnek malaak jinnek doomu aadama yi ngeen baal jinnek doomu aadama ñoo dul faale ne doomu aadama yi ñoo dul faale bés pénc ne yowmul jumaa lay teru lu dul jinne ak doomu aadama yi lépp la yàlla bind ñuy dukkat ci kaw suuf si ñoom dañuy am tiitaange bu tollu ni ñu ne aa mbaa du tey la bés penc mbaa du tey bés penc mbaa du bés penc tey lay teru mbaa du tey bés penc di taxaw jinnig doomu aadama yi dong ñoo dut faale yowmul jumaa ne ca bés penc di taxaw ndax suuruñu ko xelaatuñu ko dugaluñu ko seeni programme moo tax ñuy nekkee nekkin ba ngeen gis lenn ci doomu aadama yi di ko nekke mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xam ngeen ne ñu ngi ci année scolaire ñu ngi ci sanat dirasiya waxtu woo xamante ne cala ndongo yi di dellu ci classe yi cala la taalibe yi di dellu ci daara yi waaye cela la yi di dellu ci classe yi yéen a ngi fàttaliku fan yu néew ci ginnaaw ñu ngi doon waxtaan ak yéen walla démb rek ñu ngi doon waxtaan yen la aju ci la yonent bi doon jàngale classe bi nga xamante ne moom lañu ñu war a mën a tàggatal suñu tu tànk yi ci école yi ci jàngukaay yi fépp fu ñu war a mën a sàkkoo xam-xam kon nañu bokk xool weneen classe bi nga xamante ne ca la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale askanu jullit ñi ne nii ngeen war a jàngale seeni doom yi wala seen tuut tànk yi ñu nit ñu dugg ci classe woowu jëlee fa beneen ëlwu bu bees mooy tasmiyatun qabla al akl tudd yàlla ba ñu war tudd bala ñuy jëfandikoo ñam ñu war koo jàngal suñu kalaas élèves yi nga xamante ne ñoo nekk ci kalaas waaye ñu xëcc ko ba ñu ko andi teg ko ci daara ji di réew Rewmi FM 97.5 ñu war ko war mën a mbokk yi nga xamante ne ñu ñuy may nopp waxtaanu fajar ci waxtu wi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp amin ya rabbal alamin tey bind yan lañ andil tey ngir ñu war ko war a mën a partager ak eh, mboolem ña ñuy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na tasmiyatun qabla al akil tudd yàlla ba nga war a tudd yow jullit bi rawatuna yow tu tànk bi lu jiitu ngay jëfandikoo ñam moo li xadiis ida akala ahadukum taaman falyaqul bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillahi fi awwalihi wa axirihi rawahu tirmisi wa saxaahu albani mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ci njàngaleem yu matale yi ci njàngaleem yu nose yi ci njàngaleem yu jekk yi la mu baaxee xeet bi sallallahu alayhi wa mooy lu jiitu jullit bi di jëfandikoo ñam dafa am baat yamu war a wax moone ne at tasmiyatu baat la ya nga war a tudd ci turu yàlla yi qabla al lu jiitu ngay lekk ci xadis ba nga xamante ne yonent bi nee na ida akala ahadukum kenn ci yéen bu naree jëfandikoo ñam bu naree jëfandikoo lekk moo ne fal na wax bismillah ma ngi tàmbale sama lekk bi ci turu yàlla nee jëmm jooju de fa in nasiya fi awwalihi bu dee ci njëlbeen ba fàtte naa tudd yàlla fal yaqul na wax bismillaahi maa ngi tàmbalee sama ñam bi fii awwalihi ci turu yàlla ci njëlbeen ba wa aaxirihi ak njeexintal bi maanaa képp ku nar a sa ñam bi nga tiim wala ba nga yore sa loxo nang ni bismillah maa ngi tàmbalee lekk ci turu yàlla su ko defee seytaane sore la ay gaayam yi sore lañu su ko defee yàlla arla ak malaaka yow xamante ne doo leen gis waaye mu defal la barke ci loolu ngay jëfandikoo mu di ñam boobu ngay lekk yonent bi nee na fa in nasiya fii awwalihi jëmm jooju de bu dee dafa fàtte ci njëlbeen ba su ca commencement ba fal yaqul bismillahi fii awwalihi wa axirihi na wax maa ngi tàmbale sama ñambi ci njëlbeen ba ak ci njeexintal ba kon bu dee danga doon lekk ba nga fàttee wax bismillah nga nekk ci digg lekk bi yonent bi ne na wax maa ngi tàmbale lekk bi ci njëlbeen ba ci commencement ba ak ci njeexintal ba yal na ma yàlla aar moo tax mu ne la fa in nasiya bu dee daa fàtte fal yaqul na wax ne bismillahi maa ngi tàmbale sama ñambi ci turu yàlla fii awwalihi ci commencement ba ci njëlbeen ba wa aaxirihi ak ci njeexintal ba mooy ci fin maa ngi commencé lekk ci turu yàlla waaye ak ci njeexintal ba yal ma yàlla aar ci commencement ba yal na ma yàlla aar ci fin ba bismillahi fi awwalihi maa ngi tàmbalee jëfandikoo sama ñam bi ci njëlbeen ba ci tàmbalikaay ba wa fi aaxirihi ak ci njeexintal ba wala wa aaxirihi ak ci njeexintal maanaam yow sàkku nga kaaraange fa yàlla ci ñam ba ngay jëfandikoo ci tàmbali ba ak ci njeexintal bi maanaam sàkku nga yàlla la <coughs> sàkku nga yàlla protect la mu defal la protection ci njëlbeen ba ngay commencé jëfandikoo ñam <coughs> ak ci njeexintal ba ngay jëmak ñambi kon ñu déggee ci ne bu la yàlla aree ci njëlbeen ba mu aar la ci njeexintal ba amul dara lu lay lor bi léegi ñu déggee ci ne bu la yàlla aaree ci commencement ba ak ci fin ba amul dara lay lor ci jamono ba ngay jëfandikoo ñam boobu xadis bi Tirmisi moo ko solo waaye Albani wéral na ko moo ne wax bismillah ci jamono bi ngay lekk jafewul wax bismillah ci jamono bi ngay jëfandikoo sa ñam bi loolu jafewul moo tax mu ne at tasmiyatu wii tudd ay baat la ya nga war a tudd mu bokk ci turuyal yàlla xablal akl lu jiitu ngay lekk moo ne ida akala ahadukum taaman yonentu bi ne kenn ci yéen bu naree jëfandikoo ñam fal yaqul bismillahi na wax maa ngi tàmbale jëfandikoo ñam bi ci turuyal yàlla yonentu na fa in nasiya bu dee daa fàtte fal na wax ne bismillahi fi awwalihi maa ngi tàmbalee jëfandikoo ñam bi ci njëlbeen ba ci turu yàlla wa axirihi maa ngi ñaan yàlla aar ma ci njeexintal su ko defee nga aar sa bopp aar sa ñam bi ci lépp loo xamante ne xeetu loraange bala fa na fekk mbokk njëlbeen buntu bi mooy yonentu dañu war a raxasu suñu loxo lu jiitu ñuy jëfandikoo ñam mooy waxtaan ba weesu woon ñaareelu bunt bi ñaan barke ci la ngay jëfandikoo ci ñam mooy ñaareelu bunt ba tey ñetteelu bunt bi mooy tuddu turu yàlla lu jiitu ngay jëfandikoo ñam bala yàlla wërsëgal yal na ñu ko yàlla yombalal yal na ñu ko yàlla jàppandalal ñu mun koo jëfee nii amin ya rabbal alamin mooy xuslu yadayni qabla taam li yatafaqada maa qad yakunu alayhima min al awsaax raxasu bi lu ko waral mooy loxo bi set ci lépp la nga xamante ne ay salte yu nekk ci loxo bi la na deñ ñaareel bi mooy duwaa u baraka ñaan yàlla barke ci ñambi bi moo xam ñam tuuti la moo xam ñam bu bëri la ñaanal yàlla barke ba tax na mu ne ñu da nga war a wax ne allahuma barik lana fiihi wa atamana xayran minhu yàlla nga ñu barkel ci la ñu wërsëgal ni waaye yàlla nga ñu may wërsëg ñu jëfandikoo ci yiw ba ci nekk lu jiitu loolu nag yonent bi salaa sallam nee na na nga tudd yàlla nanga nga ne bismillahi na wax bismillah ma ngi tàmbalee jëfandikoo ñam bi ci turu yàlla nee na boo fàttee na nga wax bismillahi fi awwalihi wa axirihi maa ngi tàmbalee jëfandikoo ñam bi ci turu yàlla waaye ci njëlbeen ba ak ci njeexintal ba ci commencement ba ak ci fin ba su ko defee nga aar sa bopp aar sa ñam lépp li nga xamante ni xeetu loraange la sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama salayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid amin ya rabbal alamin bokk na ci lu ñu yonent bi sant bis ni ki tey mooy ñuy bëri la ñuy julli si moom sallallahu alayhi wa sallam assalaatu wassalaamu alayka ya rasulallah assalaatu wassalaamu alayka ya habiballah qad ballagta risalata wa addalta al amaana wa nasaxta al umma wa jahadta fi llahi xaqa jihaadihi xata ataaka alyaqin allahuma barik wa an'am ala abdika wa rasulik nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñoo fas ni jébal béréb bi ñay joxe xibaar ñu ngi nii taxaw fas yéene leen joxe xibaar ci nasaraan ñu ñaan yàlla suñu boroom di ko ne allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasira allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslihi allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin